di def seen i soirée yu mbon ñoo xam seen affaire la waaye li nu soxla ci mbon ñu yëg ne mënuñ ko am ci senegal lu bees li ñu bëgg indi ci mbon ñu yëg ne mënuñu ko am fii ci senegal ñu dem ba Brésil ñu dem ba Brésil wuti fa ay jigéen yu am fit yu ñàkk kersa yu ñàkk diini ñu ñëw ci soirée ba ak lan simmeeku ba set wicc dese morso su ndaw bu ñu def seen ween kese ak morso bu ndaw bu ñu taf ci seen kanam yaram wi yëpp li ci des ñu bokk ci biti comme xam nañ ne mbon gi bëgg nañ mu xew léegi ci Sénégal lay xew ca Brésil di xew ci réew yu bon ya ñu indi fa jigéen ñu mel noonu woo ngóor si sekk moomu di leen ko woyal du moom kenn lañ fa woo ñu bareŋ fa waaye moom ci temps wam la ñu taamu dugal fa ñooñu lu tax ñu taamu ëram moom ñu taamu ëram pour andi fecckat yooyu ak moom ñu sëmmeeku bën a dung taxaw di fecc ci kër mu ñëpp ñu leen di filme ñaari télévision def ko direct fii ci réew seen TV ak 2STV télévision xam nga yooyu nit ki da ko daan def sax kenn du ko filmer nga xëy di ko gis ci réseaux sociaux yi mais mu dem bay nekk ci télé yi nga xam ne dañu leen di seetaan fii ñaata ñaata ci xaalis moom la ñu fay ba télé bi mën ko jàllale direct kon ni mu amee ñu am yitte heure bu ñu xëyee di xool nan lañuy def bu pénc mi jag noonu la amee ñoo xam am na ñu heure bu ñu xëyee nan la ñuy def ba ñëpp yàqu ñëpp bokkandoo bon mu jaral leen ñuy dem ba ci réew yu ñag ya wala réew yi nga xam ne xalaatuñ fa diine parce que Brésil ku leen xam dama yàlla jéggal ñoom ngay dox ci mbedd mi nii gis ñaari nit taxaw di sëy ci mbedd taxaw digg mbedd góor ak góor dox ba yàgg rekk nu summeeku nekk ci li leen neex te ñeme leen xool bët da romb nga jàll foofu la Brésil toog dañuy toog sax ci biir kaar biir kaar nekkal ka ca te yow yaa ngi ci biir kaar gi te sañoo ci wax ñu mel noonu la buub su jëli ak ngóor si sekk andi leen Sénégal pour indi beneen phase bu bees ci suñu njaboot gi ñun ñoo bon ak ñoo bon te bu ñu xëyee di jaay ñëpp jullit akuk taalibe te li ñuy wax yëpp dara du ci dëgg c'est parce que sénégalais la parce que man nee naa taalibe diw la mais loolu dafa tekki dara ci yàlla foog ñu xam ne ak njullit ajuwul ci aw xeet ajuwul ci aw sant ay pratique la soo ko defee doon ko boo ko deful doonoo même boo doon doomu yonent mais nit mën na nekk doomu yonent nekk yëfër nit mën na nekk doomu yonent nekk yëfër wala ñu baax ñoo ko jur kon gënoo koo baax waaw ñu baax buñ ko juree te baaxul nag yonent yàlla noox doomam du yëfër lu gën a jege lool waaye nag bii tey koppar comme yor nañu alal yu bare mën nañoo maye ay oto mën nañoo maye xaalis bu bare te réew mi ñu ci ëpp dañoo xiif ku ci ne fa sa intérêt di jógee yaa ngi yaakaar ni boo fa waxee safaan rek mu tëju ñi ngay gis ñi leen di défendre yëpp loolu dong mbon googu rek te loo ci wax nit mbon yi nu nekk di installé te loo ci kanam lay ñëw parce que ñi ci kanam la ñuy yàq ñoom amuñu mais ñoom seen liggéey ca kanam lay feeñ koo ci wax mbon gi ñu nekkee xam nga lu mu lay wax montant ak a baax day dimbali yaayam day dimbali ñi néew doole day maye xaalis. day may ay xaru tabaski Bill Gates moo leen ëpp doole ci loolu ku ko dàq maye ay milliard xaw ma te amul ak yàlla affaire dégg yow ñu naan la kii day maye xaru tabaski day maye oto parce que yaayam da koo gërëm bàyyam da koo gërëm way jur yëpp yemuñu de am na way jur yoo xam ne doom daa jaar ci ñoom rek jàll dama yàlla jël waaye boo nekkoon ci li gën a bon ci àddina fii ak yaa ngi indi xaalis d' accord nañu bo yorul dara nak lo bax bax amuñu ak yow affaire ñi ëpp ci tiaxan kër yoy laaj leen de ko ci laaj nan la au départ sama papa d'accordu ci ko dama daan daw di def papa di diko téré ngay daw di def di neubut yag moom mu lay genn genn di xex nga dem ba shaytané jey la affaire ba dox nga xey am billet di tukki di ñew xey am auto xey lu bari ci kër gi nga mën ko def bi bay lo ko parce que xamna na ne léegi yaa ngi faj ay bu mu gatché fi li ñuy tuddé gatché ci àddina mooy nit ki am soxla nga fajal ko ñu jëla bayyi bërgë bërgëm la fukki artiste yo ci jël la wax ne ci réew mi wallahi fukk yo ci jël juroom ñeenti yépp bi ñu ci dugg seen papa dàq kon man doomu diiw la talibi diiw la lolu ay tiaxan la fi la yem ci adina naxante la waye man japp na ne ñoo mbon gi ñu def fi barki dembu bu dee am na saaga bu mës a mel noonu ci xeet wi mësuma koo dégg ay ndaw yu yu jógee fii ci réew jëli ay jigéen yu asaru yu mel nii andi leen fii ci réew mi pour lan mais jëlee leen Brésil ñu ñëw senegal di fecc simmeeku pour lan la pour lan lan lan mooy hëdëf bi objectif bi lan la lan lan jublu ci andil ñu ay jigéen yu simeeku mën ne dung ñu fecc ñu filmer leen génne leen ci télé yi objectif bi lan la lan la pour baaxal suñu njaboot gi la wala objectif la ñu am mooy mbon gi ñuy def na law fépp ci mbonu mondialisation te mooy mbon ngay xew ca Amérique na nekk ñuy xew fii ci réew mi fee fa def ñu naan la fii Sénégal laajul yooyu dañoo ami réalité li fi nekk danga koy bàyyi xel loolu lañ bëgg mu